<laughs> Sénégal dina am ndam ci kàttanu suñu borom. <laughs> Euh, mais man li sans problème mooy li sans problème mooy fi làmb toll fi làmb jëm. xam nga tey jii fi sita toll Siteu Balla Gaye combat la xanaa xam nga man damaa tiit Balla Gaye day jël deuxième avance Siteu. loolu maa koy ragal. mais Siteu daa juum. Siteu daa juum ko fay ci gi Gaye waru ko non non. rëcc moom waru waru ko woon li tax waru ko woon a rëcc mooy millions bu la ko fayee si benn nga bëre dans trois mois nii la la déguère ñu fay la soixante millions ñoo ñëwatu ñu fay la quatre millions ngay dem bëre ji Balla Gaye bu la daane wàññiwul dara wàññiwul dara sa carrière eh, Fada maa ngi génn na ci waar bi dégg ngeen waaw waaw waaw dégg nga waaw incha allah may dégg Fadam maa ngi dégg la jël quatre vingt yi am na fu mu xaj loolu quatre vingt millions mën na ñetti kër mm-hmm. nga teg mm-hmm. mm-hmm. bala kay mu daan la nga daan ka amul problème à neuf mais jël quatre vingt millions yi nga am foo ko dugal ba pare ndax si ta xale la quoi ndaw la su dara moo tax ma koy wax ndaw la quoi et puis nit ki non da nga koy yéene da nga koy nga koy yéene man bu loon dama koy jël barki yonent bi dama koy jël ñëw entraîné ngembu lu Balla Gaye def ma dindi ko lu yàlla def ma xam ne lii la yàlla def terewul dina am sama xaaj boo xamante ne am na foo xamante ne dafa xaj n'est-ce pas loolu mooy àddina mais warul bàyyi Balla Gaye di dem di jëli keneen wala di xaaraat fu mu nekk ana bi da koy raw li américain bi naan am going to work you gotta make money da ko war na jël am fu mu ko dugal mu jural ko dara ëllëg ndax tamit man awma loolu rek damay yéene si talu bon déedéet man duma genre boobu man lu waaye am la ko muurloo wërsëg dina ñëw arrêt boobu am mais mais xam nga ne fii may waxee yow nii am na promoteur yi taxaw pour deuxième combat bu Balla Gaye de avance am waaw loolu dëgg la. Siteu naka jël ndax tamit bu toogee xaar Ama Baldé Gris Bordeaux Ama Baldé Gris Bordeaux Siteu avant moo bëree woon ak Ama Baldé dafa waroon a bëri ak Balla Gaye de ba pare. li tax Siteu waroon a bëri ak Balla Gaye ba pare mooy avant moo jëflanteeg Ama Baldé dafa waroon a bëri ak Balla Gaye de ndax bu bu jëflanteeg Ama mhm. bu ci defet amee dootul mën a jot Balla Gaye bu fekkee ne ndam da ce am wa kay bu fekkee ne ndam da ce am dina mën a bëri Ama Baldé kon kutoo kutoo kut ci communication côté Siteu dañoo war a communiquer Siteu bëreeg Balla Gaye waaye daa am leneen lu xew ci ama neex hmm. ndax fii may waxee yow am na promoteur yi taxaw pour dëgg diggante boo ñaar Siteu waaw ñoom ñaar bokkuñu dara maa ngi dégg dañuy ànda c'est-à-dire man awma ci lu ma leer mais daa war a bëre Siteu mbooloo moo ko topp la fi mu dëkk jaam a gën donc daa war a bëre amul ay xarit ay c'est-à-dire benn xarit rek doy na rek rek ma rek rek laa a bëre si làmb ji hmm? rek yee yéen xarit yi dalay sonal rek dalay sonal rek daa war a dem bëre ji Balla Gaye waru ko woon rek moo neex yàlla ku dee sa bàmmeel c'est bu wéetee ak nga naa am tëdd xam ne Balla Gaye waru ko woon rëcc waroon naa bëre moom mu fa am xam ne lii la hmm. ëllëg bu ñëwaatee tamit kasam du wàññeeku ndax li muy dugal moo tax àddina lépp loolu si tam bokk na ci mbër bokk na ci mbër yi nga xam ne nii ci làmb mhm. bokk na ci mbër yi nga xam ne mu mag muy fayeku cent millions bu si defaale ci côté public ci côté promotion ci côté marketing waaw loolu la wax xëy na nag lii du wërsëgam peut moo tax mu rëcc nga xëy na après dina dabwaat mais fi mu nekk day toogaat xaar ba ñuy pare mu doog a bëriwaat loolu pertement la man bu ma jotoon avance legui ni ni ni ni tay tay tay tay manam yobou ko sama yaay comme ni ma la def rek. mais na temps bi xaaratu. mais tey ama neex yeen avance la jëm ama neex fan la ama neex jëm ndax dar nga bébé jëm mais ba legui ni ama neex combat ciow combat der la bëgg gisat ndax sa digënté ak Lac Rose man nek na combat bo xam dama bëgg mu leer ndax man dama fekke fo signature ak Lac Rose. dama fekke ak Lac Rose ngeen tekkante wa loolu mom dëgg la moom mais xam nga timit comme li la Boucher wax rek Boucher maax mom duñ wax mais xeyna peut-être xolam bu rafet motax bu mu duggee nuyoowul mais bon man jappaluma ken dara man julit la duma jappal ken dara yow maa yow xuloo nañ fi xuloo bu tar fadam lu ne wax na la ko mhm. mais lolu passé na mën nañu sa mhm. jour di nek di guerre mhm. bañ wax la may dëkk sa dañuy joté sa dañuy yaamu gën a xam ko li waaw lolu sama waay li am solo ba am solo li am important ba am importance moy man mom bàyyi naa boy la ma daan kan nga booy Lac Rose booy. waaw booy la maa ko mag. xaaral ma woo nga dégg. waaw ndax yow da ngaa bëgg maa mag. yow man baal Lac mi nga naan booy Lac Rose du booyu kenn. non si non maa ko man maa ko mag si âge maa ko mag barki yonent hmm? mag maa ko mag maa ko de yàlla moom xam na loolu mais maa ko mag loolu man ragaluma kenn mais man dama la bàyyi naa bëre booy man man war hmm? man ma boy ñaan suñu combat war na mën taxaw mais xam nga lamb di lay bo si amul negam ndey amoo si negam bay amo ko la waxal mooy loolu ah yàgg ah, boy ñaa bu ñëwee ma may ko revanche barki yonent ci yàlla Muhammad daanaar ko daan bu gëna gëra bobu mais ma mënu ko dindi ci adina xam mo duma taxawat taxawaat di laaj mbër naan mbeur ni mbeur nii déedéet duma laaj kenn kuma yalla bolal ma yow si kaw lu raisonnable daan bi ma ko daanoon bu gën a garaaw boobu ma daanaat ka ah gaynde mer la fanaanoo de ama neex gaynde mer la fanaanoo de mais man maa leen gën a mer ñoom ñu ngi am si cent millions yi quatre vingt yi man amaguma si te maa leen daan waaw loolu di moom loolu di moom loolu di dëgg la li ma wax nit ma mënu si àddina xam moon du ma taxawaat fii di laaj mbër naan mbër mbër nii laaj kenn ku ma a booleel ma bëre yow si kaw lu raisonnable ndax tamit def naa si làmb loo xamante ni tamit euh, Fadam a ah, mhm. man ne du ma tàgg sama no no non non daanaan nga daanaan nga maa koy wax te kaw ñëpp di ko dégg. wallaahi ama neex palmarès palmarès kenn dàqalewu ko ci làmb de. billaay wallaahi kala. Fadam dàqalewu la làmb de combat trois défaites la am wallaahi azim. boo yi nga gis ni si làmb ji ni kenn mënu ma see daan bu ma entraîné ñu ñëw taxaw barki alxuraanu karim dama mën non ndax booy ñaar booy ñaar rawu la ci ci doole wala ci côté. jàppale non non non doole rawu si doole rawu ma si jàppale ña ma daan jàppale ba may doog a bëri ñoo jàppale sëriñ ña ma daan ñaanal ñoo may ñaanal ba léegi barki yonent bi doole. loolu mooy la mais ndax booy ñaar mi nga bëri loolu ak bi ndax benn laa ma neex. lu tax du benn benn la de ëppewu ma dara bu taxawoon tey ñu am cinq mois wala quatre mois bu ma ñëwee taxaw da nga naan kii du sama waa ji xoolal ma bébé jël. états-unis bi taxawee ma nekk ah. ray sama bop ray sama bop xam nga man bëgguma mas man gaay ni dafa am mas man nako xamna yoon bi man may professionnel ñatt yoon la tukki mais man bëri bi ma yor buma ma diisee du ma bëri góor gi daan na ma ko wax yàlla ko yalla yërëm dana ma xawma dina dina fekke wala duma fekke mais bis bo chargé sa yaram wi li nga bëgg daan mbeur mbeur mu lay tëj hmm? wallahi azim li la ma wax mu ngi si dëgg ngi ci fen soxlaaw ma masse xam nga la laa soxlaa condition physique rapidité puissance force mais bi nga déggee bi nga déggee bi nga déggee bi nga déggee ñu ne ama neex mhm. daan na bébé jéen yan combat lañ la proposé non combat yi bari na même Rak Rose moom ngay wax Aziz Ndiaye wax na si mais man dama pare si booy non naa combat bi dina naa ne sa diggante ak Rak dama pare si booy yi mais ndax tey ji ama neex bërit bii mu am ak li ma gis sa digganteeg bébé Diène ndax Lac Rose mën naa tii ama neex. non non Lac Rose tey jii bu xaw bëgguma sax wax. xam nga xam nga dafa am loo xamante ne ndax tey jii ak lépp lu métti métti dama jàpp ne Lac Rose retouram bi dafa mel dafa am loo xam ne da nga kii daf la xaw a tiital quoi. dafa xaw a non non non non non non yow bébé Diène nga daan. Mhm. mais fils de Balla bi teg la trois victoires si la la seere puusul paasul. ndax nekkul Lac Rose bi di contact guddi di xeex box boobu. tour gauche droite yooyu ndax nekkul moo ama neex bañ ko jël. Euh, euh, barki yonenti yàlla muhammad amul kenn koo xam ne dama siy tegg sa avance yow man ngay waxal de le requin de Rufisque man du ma daw rey ma Lac Rose moo dindi sama ñaari bëñ yi nekk sama côté. ndax dafay rek suñu premier combat. mu dindi woon ñaar yi. non non du dindi dara xam nga la moo bu ma bëggee dara damay bàyyi dara Lac Rose ba ñuy bëri ba ñu tewee ma mais ma am téye ngembali ba sànni ko man ko mais jàpp nga ne Lac Rose bi nga bëri loon dina ñëwaat ci làmb Lac Rose boobu mën na amaat. non na amaat yàlla ko yàlla defal ab jullit la jàmm laa ko yéene mais maax moom instant bi du yoonu làmb. Eh, dix ans ama neex dix ans bi may wax ak yéen diggante ama neex ak Lac Rose bu taxawee bu mu leen bett de. waaw non non man soxlaa ma Lac Rose mu clair man xam nga ne laa soxlaa bu fekkee ne combat bu fekkee ne soxlaa nan ma ko jox <laughs> man ay Lac Rose nan ma jox booy ñaa eh, dama li ngay wax ni soxlo ko war xam na la bu baax neex dina Muhammad la soxla di gundi tay bi boy ñaa la bëgg bëreel ma wanaat ka naka man ma la man yow ya man kan wallahi azim sa xërëmi ci njobb yow yow boy ñaa ni mu bëre moo Modou bu lol man Modou Lo du taxaw modlo mu ci kaw turbine di kon la ilaha illallah <laughs> man duma japp di di <laughs> hein man duma japp di di hein barki yéen moom daa yéex foofu réaction bi daa yéex. réaction bi dafa yéex. te booy ñaa moom état bi mu indi si làmb ji waru ko woon sa indi waroon naa gën a mën a maigrir. indi mobilité. waaw waroon gën a maigrir. <laughs> wow kon. mais fi may wax nii fi may wax nii. lu doy waar ngi am fi ci suuf. waaw ci sama téléphone non xam naa xam naa yàlla ma bind loolu quoi gars yi dañ ma bëgg. Eh? moo tax waruma raasi la ma si gars yi dañ ma mais ndax la yow man xam naa loolu. yéen ñaar bu ngeen signatiré dem préparé wu ji. war a dajewaat. maa ngi ñaanal doomu daangu yàlla may gandam non yi ngeen wax ne waxuma ko man ay waxuma ko man fii dong waaw non sama frère la. waaw ma jàppale ci combat bi ma jógee. noo laan contact guddi ak bëccëg. Gambu Gueye dimanche la war a bëri maa ngi koy ñaanal ndam. dalaan contact samay gaay samay gaay la samay rakkee lañ ñoo bokk tëngeet di liggéeyandoo ñu ah. yéen ma jàmm ma yéen leen jàmm kon c'est normal bu ñu amee combat ma ñaareel leen. ñoo bokk mais gëm nga ne gëm nga gis mën naa tenir Tapha Tine. la déggoo li la kii wax waa kes bi nee na la carrément temps bi dafa gudd. Balla mën na see amaat lu ne. te Balla barki alxuraanu karim mu demee ICS ICS du sax taxawax bu euh, waa ji waa ji nag nee na dama leen nappaaje non dégguma li nga xamal neex nga ne Balla Gaye de bu demee indi sa préparé barki Seydina Mouhamed bu ñu yàlla may fekkee tal bu ñu demee bindal li ma la tey tey la le vingt janvier bu ñu ISEPS ñëwaat yàlla may ko jàmm ak du sax tafaatin du ko sax xool dafay dóor daw jàpp ko ko ko jël tax ci ji lamb lamb dafa xaw non ni mu jaxasoo daa ëpp sax. ndax fi may wax ak yow nii Modou Lo arrière bi mu arrière ci làmb daa def benn impact. ndax Modou Lo arrière bi mu arrière tax na ne. Balla Gaye jël na Tapha Tine. Eumeu Sène jël na Sa Thiès. Ama Baldé jël na Gris Bordeaux. Lac de Guiers numéro 2 Reug Reug ñu ngi koy dox te daanaka Lac de Guiers numéro 2 Reug Reug mën naa taxaw suba loolu moom du problème mais diggante Siteu Boy Niang numéro de ci benn cas bi taxaw taxaw mais combat boobu sponsor bu mag moo ko bëgg combat xaalis la. mais waaw loolu moo làmb moom tijjee tijjeeku na boo bëggee dëgg-dëgg bàyyi ma xaar Ada Fass guy gi ba xam <laughs> ku si daan ma jël la Ada guy gi daa yàgg Ada Fass guy gi daa yàgg amul problème dinaa fi voyage yi dafa mel ni lak baax dafa mel ni Lac Rose am na loo ciy nëbb quoi gis nga faram bu yàlla defee ma amaat combat ba ñëwaat si arène bi non xam nga da nga am cir ci làmb yoo xam nga da nga am cir ci làmb gaay dinañ ma fonk ci ni dinañ ma mais amana neex yow tay ji ni nga mel ci lamb ni nga mëne bëre. ndax ni nga bolé franc mi fi ñëpp tek bu fekkoon franc mi fi ñëpp tek bu fekkoon ne sama rakk Coense waxuñu ay waxam ma dem jëli franc daan ko ah looloo gëna dé ñëpp dar seen gëma na li nan la mëna nekk ci adina té goma dé Forza day bëre franc ma dugg si gëw bi nak Forza mënu mëna naa Abbas mënu mëna naa état bi nga jël nii indi ko si làmb ji sax benn dalu yoon mais du ma la découragé loolu yàlla na la yàlla may ndam mais bi mu bëree pare dama ko woo téléphone naka Abbas moom naa ma ne ko franc benn moo la moo la gën a yaramam moo gën a nangu sa yaram ko bëre état bi nga jël nii yor kiwis yoo xamante ni kon ay pëna jaru ko woon yor mbagga yoo xamante ni pour nga def action problème la ndax boo yàggee équipe musculation sa yaram dafay fasu déggoo de Forza waroon naa wàññi poids am ba ba oyof eh, ba li mu bëgg bu Franc bu dawee jël ko mu man ka capter téye ko seetlu woo maax ba Bébé Diène bi ñuy bëree Bébé Diène bu mu dóoree une deux daw ñëw bu sañ dama ko capter. non man man Bébé Diène dama jàpp ne. Mhm. préparé na bés boobee préparé am a neex ndax moom ci yoon moom wartoon na nangu nga koy féete suuf. waaw mais il faut mu féete ko suuf xam daa. dóor mais mais erreur la la ci ñàkk préparation. mais man dama ko capté man du ma dof. xam naa non da nga ko tëru da nga ko tëru. tër ko tëru. waaw moo yor ci moom mu siggi ma daw. dem jëli ko. kottu ndigal xam nga jëli bi nga ko daan nu mu tudd. waaw ko rappel. waaw ma ko def waaw dama ko rappel. waaw ñëw. ma aj ko dóor ko. da nga ko rappel te moom boo nee ko nu la amoon def daanaka dina dem da nga ko rappel ndax moom yow da nga koo stratégie bi nga a neex am kii diggante bële moo tax tey jii bëggoon naa gis ama neex mu jël combat bu métti métti métti combat bu am xaalis laa bëgg. ama man bi ma daanee dama de Guiers na ñëw ñu bëri Lac de Guiers yow si li mu am si Lac de Guiers bu ma ko amoon Lac de Guiers xam nga fan lay nekk maire maire géej waay walaa koy non man a ama neex la bëgg naa yàkkamti lay wax yaa ngi ree mais comprendre sax li wax yow ko Lac de Guiers bu ma ko amoon mairie laa koy aj ma ne la booy Niang moom Modou Lo action boobu Boy Niang tànk noonu bu doon man heure bi bi bi ñaar tànk Modou Lo yu tolloo. waaw dama taxawee heure bii Modou xam nga fa nekk kaaf kaaf ba laa ko woon aj kaaf ba. <laughs> yow daal ñaari combat yi daal am neex nga koy xaar diggante ah, Ada Fass ak ki nga xam ne mooy guy gi ku daan ama neex a ngi taxaw. waaw diggante Lac Rose amagul combat. Avenir diggante mag Lac Rose am na promoteur yi ciy wax. bu ñu fayee xaalis combat bi dina taxaw. non na man soxlaa ma Lac Rose. Lac Rose bu dee dégg waaw nga bëgg Lac eh, nga ne sama gaañ nga ma lu ma la xam nekk ci man. mais mais lan moo tax Ada Fass guy gi nga nga nga bàyyi ko la da jàpp ne ñoom ñaar dañoo daan wala. non non du question neex a daan te guy gi daanoon na ma. doon naa ah. ko mu jox ma revanche mu dem jëli arafat ma maa ngi leen xaar nungunya bu daane ma jël ko guuy gi bu daane ma jël ko comme te ñi si kaw nangu ñu maa jël kañ ma tok xaar rek man bo gisé ma def ana balance li rek la nangu ñu maa jël ñoom ñu ci man. dañ la wara jël bañ la wara jël ma bëre dañ la wara jël ndax kenn mënu lu ci làmb kenn mënu lu ci lamb mais nak bo ñaam bi ngay dëkk mom bu yeboo nga bàyyi ndax euh, suñu mbokk dañu fa di waa Pikine sen yaram dafa len boo ñaa boo ñaa moom boo moom daa woon a taxaw na man ama neex laa dem jëli ndax moo ma daanoon dama koy dem jëli daan ko du sama yoon waaw mais ndax boo ñaa lii mu dajale guddi yi mu toll ci meer le retour de boo ndax ama neex na ko waaw yow boo ñaa nan la mel a meree te man maa war a mer ma yaakaar ne yow yaa ngi man ay victoire rek laa mais dama ne la boo ñaa àgg na benn niveau boo xamante ni maanaam xam nga yéene néeg la borom moo ci finaan tey par man dama def ana balance boo ñaa am ay combat bëre nekk benn niveau man may rampewaat di ñëwaat pour fekk sa niveau boobu mais daa war a ñëw man ku ma daan tey suba doo ma daan boo ñaa daa da war def ci boppam na ama neex mii moo ma daan jël boo xamante ni kenn mësuma kaa daan si ëllëg si àddina xaaral ma dem day yàq suñu waxtaan te niveau bi nga ne nekkoon dafa am solo. mais mais mais kontaan nañ ci yow kontaan nañ ci yow. non yow maa la gën a kontaan barke yonent bi. ndax dafa am ku mu fi gis léegi nii dama ko bëgg a dugal. kàlla non jarul wax mais ma tuuti rek maa ngi ñëw. mais man damay dem de damay dem rawante dem jooyi de. dama nga jooyi ji loolu du problème yow su ma nee la semaine bii sa combat dama gëm. ama am rawante gaal quoi dama dem jooyi dama dama doon noppalu ko nuy tuuti la gars yi ñu ngi may sax. rawante jeex na maa ngi lay dinañ dinañ déggante léegi ci kanam. rawante gaal mbaaw quoi. ma jooy gaal rawante yi. mais ngoon déggante. jaajëf ama neex. thank you bro.